donc loolu bu DPG amul kenn du mën a xam fan la ñu jëm leneen li mooy la question du chômage bi nga xamante ni c'est un chômage massif te tey jii kenn xamul fan lan la ñu war a lan la ñu am comme solution ci court terme Euh, moyen terme ak long terme pour régler la question du chômage donc loolu yëpp l'absence d'une déclaration de politique générale moom moo tax kenn mënul xam fan la ñu jëm donc leneen li aussi c'est la question par rapport à la justice par rapport à la reddition des comptes le premier ministre doit cesser de parler des dossiers judiciaires c'est la meilleure manière de donner aux poursuites judiciaires une connotation politique. Plus ils en parlent, plus les gens qui seront traqués demain vont penser, et, et à juste raison, que ce sont des dossiers politiques. Donc lui, il a un pouvoir dérivé de le côté exécutif, le président de la République. Donc aujourd'hui, il, il, c'est d'où moi, je suis dossier judiciaire. du cëram tamit muy wax ne ndax dañoo retrouver ñeenti nit wala juróomi nit entre Canada ak loolu loolu justice moo ko war a wax te lui il n'est pas la justice moom ñun dañ doon bañ immixtion de l'exécutif dans les dossiers judiciaires dans la justice donc moom nag euh, moom ak Bassirou ay fay il faut que ñu xam ne ils ne peuvent pas faire moins que les autres il doivent même faire plus donc il faut rester à il faut que les chaque chaque pouvoir reste à équidistance pour que ñu mën a xam effectivement ne justice buy dox du justice rek moom mooy doxal boppam ak ni mu ko yëgee donc le ministre de la justice est là le procureur général il est là donc le procureur de la république a wax la ñuy jox li nga xamante ni moom mooy une demande aussi de des par rapport ak nga xamante noonu la yore woon seen xaalis waaye daal jàpp naa jot na kenn ku ci nekk yem ci périmètre am kenn ku ci nekk wax li nga war a wax dox fi nga war a mu yeneen question yoo xamante ni war nañ ci ñëw pour man le dossier la jub jubal jubbanti dafa am ay test grandeur nature ñaari yi nga xamante ni jàpp naa ne yu am solo la mooy le dossier de l'ASER ak le dossier de l'ONAS le dossier de l'ONAS li ci le ministre Ousmane Diagne wax am na solo muy une enquête ouverte waaye dañoo bëgg bëgguñu Sénégal boo xamante ni aussi door doom làq doom la Cheikh Dieng dañ ko dóor bàyyi Cheikh Tidiane Dieye donc dóor doom làq doom mënul am Cheikh Tidiane Dieye doit être démis au même titre que Cheikh Dieng loolu mooy dëgg c'est-à-dire que ñun Sénégal boobu la ñu bëgg mooy justice boo xam dootul nekk à double vitesse te loolu du ñu ci may kenn dara tarafatal ay ni parce que les gens se sont battus pour am benn étape boo xam dañ fay jógee dem ci beneen étape mais on ne peut pas def benn pas en avant def fukki pas en arrière sinon buur duñ ci génn <laughs> donc jàpp naa ne il est aujourd'hui important qu'on puisse remettre les choses à l'endroit sénégalais yi xam ne dañu am yaakaar bu rëy rëy am am yéene bu rëy pour am justice bu indépendante mais surtout pour am lu ñu def ci sunu biir yi am njàng mu baax am paj mu baax am fi mu ne nii njàng mi kenn xamagul fan la ñu jëm ci njàng mi ñoo ngi wax nii rek ay déclaration d'intention la paj mi kenn xamagul la santé n'est pas encore au cœur de la préoccupation déggagoo ñu tudd ko fenn parce que amaguñ déclaration de politique générale donc déclaration de politique générale c'est pas un souhait ou une volonté des populations euh, des des des acteurs politiques c'est un souhait et une volonté des populations ñoom ñoo ne wax leen ñu fii nga xamante ni foofu ngeen bëgg a dem jàpp naa ne loolu amul neexal amul euh, euh, wax dëgg kenn du fi neexal kenn kenn du ko ñaan ci njëkk tamit waaw loolu c'est la loi qui l'exige l'article cinquante cinq de la constitution est très clair donc donc damaa gis dóor doom làq doom dans le dossier de l'ONAS dañoo dàq Cheikh Dieng bàyyi Cheikh Tidiane Dièye loolu ñëpp gis nañ ko wala amul am na dañoo dàq kii téye ba pare beneen bi mooy euh, sur le dossier de Lazer la même chose ce sont des sénégalais qui se sont sentis lésés au détriment d'étrangers ba tey kenn waxu ci dara yooyu yëpp tey jii dañu am na ñu bëri ñoo xamante ni jàpp nañ ne am na lu bari lu ci nekk loo xamante ni jot nañu leeral ko léegi nag pour ñu leeral ko nag mooy test grandeur nature bu jub jubal jubanti bi waaw beneen bi nga xamante ni aussi dafa dafa menacer sunu cohésion sociale ak sunu vivre ensemble c'est l'affaire Cheikh Oumar Diagne nga xamante ni c'est des déclarations yoo xamante ni qui visent à faire sauter les verrous d'un vivre ensemble et d'une cohésion nationale dëkk bu nekk da nga am lu la jig ñun sunu dëkk dafa am lu ko jig loolu nag bëgguñu kenn koo xamante ni daf koy remettre et nous interpellons le chef de l'État comme nous interpellons toutes les institutions yi nekk ci réew mi pour ñu jouer seen rôle pour pour dire plus jamais ça parce que jii réew moo mën a dem tey jii boo demee Angleterre lu la neex mën nga ko wax mais la famille leen di may jàmm boo demee tey ji États-Unis bu ñu tuddee Abraham Lincoln wala ñu tudd George Washington wala ñu tudd keneen kenn du ko laal boo tuddee boo demee France tey ji toute la classe française veut être gaulliste mais ñun suñuy père fondateur mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall mooy Cheikh Moussa Camara mooy Maulana Cheikh Ibrahima Niass mooy euh, Mame Limamou Laye mooy Cheikh Ahmadou Bamba mooy Seydi Hadji Malick ñun ñooñu la ñu am donc mënuñoo nangu kenn. ci sa ci say humeur ak say état d'âme ngay dal ci seen kaw comme nu mu la neexee donc il faut laisser le sacré tel quel ñu bàyyi ko noonu mu nekk sunu soubassement sunu sunu cëslaay sunu keno yi nga xamante ni ji la ñuy sukkandiku donc s'ils font de la politique ils n'ont qu'à faire de la politique mais am na loo xamante ni euh, dafa transcender c'est des questions transcendantales yoo xamante ni nañ ko bàyyi noonu mu mel et que li may wax mooy le premier ministre sorti yi mu def nii yëpp. amut lu gën a am solo mu wax ci le dossier de l'ONAS le dossier de l'ASER le dossier Cheikh Oumar Diagne jàpp naa ne c'est des questions importantes yoo xamante ni daf ko éluder et su fekkee ne ñoom ñooy protégé ñooñu aussi nañ ñu ko wax comme ça ñun ñu mën ko xam-xam fi ñu jëm. une dernière question euh, ce que Pape Djibril Fall mën bien sûr bien sûr incha allah dañuy dellu si waat assemblée nationale parce que sénégalais yi euh, jàpp naa ne li taxoon ñu tànn ñu. loolu boobu ba tey ñoo ngi ci et je pense que ne euh, que je sois à l'Assemblée nationale wala ma bañ a nekk Assemblée nationale je vais demeurer un éternel serviteur donc man aw amuñu loo xamante ni loolu la ñuy sikki sàkk ci loolu mooy bëgg na servir sunu réew ak taxawu sunu askan loolu moom moo ñu ëpp doole suñu borom moo ñu nattoo Sénégal ñu bëgg ko euh, am yéene taxawal ko donc oto boobu on n'a pas de doute leneen li nga xamante ni moom mooy par rapport à la dissolution effectivement le président de la République ay prérogatives am lañ donc à partir du 12 na ko dissoudre ñu dem élection daal di demaat ci sénégalais yi waxtaan ak ñoom ñu daal di ñuy wóoluwaat delloosiwaat ñu assemblée nationale te wax dëgg yàlla euh, xam naa ne buñ ci eggee suñu neexee sax ñun duñu campagne donc franchement ce benn formalité lay doon. ñun parce que xam nañ ne sénégalais yi am nañ yaakaar boobu ci ñun et que prérogative président de la république la. merci beaucoup. merci euh, euh, moom nag moom moo doon addu jëmale ci li nga xam ne moom mooy motion de censure waaye itam ci li nga ne moom mooy la déclaration de politique générale bi nga xam ne jàpp nañ ne moom élimaanu euh, jëwriñ da ko war a def si fi nga xam ne moo ci assemblée nationale bi ne waaye jàpp na itam na li mu war a wax ci. ñu déglu honorable député. Il y a des secteurs qui sont concernés par ces projets de loi, qui sont et en tout cas euh, pour qu'ils puissent fonctionner normalement, ont besoin que ces projets de loi soient adoptés. Donc c'est pourquoi aussi bien le projet de loi de règlement, le projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme, le projet de loi euh, autorisant le président de la République à ratifier une convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. Quand vous lisez l'exposé des motifs, vous voyez que c'est des motifs très sérieux et c'est des engagements de l'État du Sénégal au niveau national et au niveau international. Maintenant, pour le reste, l'Assemblée nationale doit faire son travail. Son travail, c'est de voter des lois. Son travail, c'est de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer